ku nekk dem kontaan dama c'est ça qu'on attend de quelqu'un mais pas cette agressivité qu'il est en train de mener et il faut fustiger que nit ki tey ñu toll ci réew mi nga xam ne dañuy ut jàmm te fu ñu gisee nit def ko tamit dañ koy wax xam nga man kenn du wax ne ma man parfois Sonko day wax ma ne ko lii keneen wax ma ne lii keneen wax ma ne lii mais lii nag nañ ko wax nit ñëpp xam ko c'est que Doudou Ka mooy def moo dul yoon waru ko def parce que réew mi jàmm la soxla quand le président a quitté chez lui pour aller à Touba di inaugurer hôpital bi ko ko rafetluwul maître ñëpp ko rafetlu ne lii dañ ko war a démocratiser. réew mi ñëpp même ñenn ñi doon nga xam dañ ne dañ daan téye président di attaqué sax bi ñu waxee dañ ñemee président parce que boo defee lu baax na ñi ñi waxoo. d'accord ba pare ñi ñi accueillir ko. mais tey loolu yàqu na. barki démb ngeen taxaw ne vous avez un budget de cinq mille milliards. ñëpp di déglu. Mhm. di xool loo ñu def cinq mille milliards nga xëy suba yow amoon looy def di violenter ay nit ba fàtte yow seen jëf c'est-à-dire c'est ça moom moom problème xam nga yéen xam nga ñi seen problème lan moo tax mhm. plus souvent sénégalais yi du ñu xam li ngeen di def da ngeen di def lu baax léegi léegi léegi benn nit yàq ko ci toj bopp jàmbur ñu ak ñu accentuer communication bi ci bopp ba ñu toj bàyyi réalisation bi et c'est ça qu'il faut éviter. ça doit aller au-delà. mais ça ça doit être au-delà c'est comme cette agressivité que vous êtes waxuma si. violence fiscale ngay wax. <laughs> c'est-à-dire que man tey mënuma concevoir président quand un Sénégalais a un problème à l'extérieur que ñu lijjanti ko régler ko ba nga ñibbi si gaajo defoon nañ ko <laughs> dañ ko taxaw. et dire même pas convié des médias à Dubaï. ah c'est ça tu vois déjà. alors que les alors que les petits on les a amenés. Hmm. les petits yaa ngi dégg loolu loolu loolu day fës. man xoolal man non non day fës loolu. parce que même bu fekkoon ne sax. yow xam nga ne lii si règle de la nga teg dafa nànk rek. xam nga boo ko tegee dans les règles de la. nañ ñu xam ne yow mi xeexu leen. d'accord alors. c'est-à-dire euh, boobaa nañ xam ne ñuy invité wu la maintenant maintenant nen foofu il faut nga may parce que waxuma ci bëgg a wax président ne ko mhm. Ablaye Wade am na lu ko fi daloon entre Youssou Ndour et Bara Tall te des hommes d'affaires qui étaient là am fi cër am fi ndomb tànk di créer ay emplois di contribuer à l'économie de notre pays seen xeex ak contribué aujourd'hui à la chute de Wade qu'on le ou pas kooku ñëpp xam nañ ko et on va pas arriver à ce niveau c'est-à-dire il faudrait pas aujourd'hui que à travers des médias mu am loo xamante ni ne Macky da koy def envers le secteur privé national ak nu mu mënti demee tey il est le père de la nation ak nu mu mënti demee bi Gadio amee problème il a tout fait pour que Gadio revienne dans son pays et pourtant en ce moment il cherche ses intérêts dans d'autres pays mm-hmm. contrairement à Bougane qui est là qui crée des qui contribue à l'économie de notre pays, qui a des gens et qui Il lui revenait, lui, en tant que président de la République. D'accord. En ayant un esprit de dépassement. faire partie ñëw ñëw ne ah, je sais que il situation pour Bougane non non il faut pas il faut il pas ñu ñu ko ay problème hmm. c'est ça qu'on attendait de lui hmm. te loolu maître am nga ci rôle dafa am yoo xamante ni ne bu leen faale ñeneen ñi nañu gëm yàlla xam ne jeune nga tu as été formé dans par le parti socialiste tu une formation quand on entend ton discours tu sais que tu ne viens pas de n'importe où am na foo jaar am na foo kii ba tey buñ ne dénkee ndoom responsabilité nga mën ko yor loolu bu ko nit amee ngeen am ay jeunes yoo xamante ne ils sont là doon ay exemple nekk ci réew mi di liggéey ak quelque que soit leur position politique ak quel soit lu ñuy def vous devez être là et de dire aux gens mais écoutez mhm. on n'a pas besoin d'aller à ce niveau le Sénégal n'a pas besoin de ça donc problème bi nañ ko régler parce que jàmm lañ ci ut jàmm lañ ci ñaan lii jaru ko deux milliards de francs le président vice statut bu nekk en tant que chef d'État mm. nga sa secteur privé nekk na nekk si nekk seen situation waaw quel est le rôle d'un président de ah no Je D'accord. pense que Macky ne doit pas Alors, aller rebondir rapidement sur les propos de de, de Omar euh, Bala tamit ngay ñëw ci euh, justement on allait en parler mooy gros bras yooyu ñu la accusé woon Fouta Tampi euh, accusé woon ne que ñu mm, mm, dugaloon ci sax sa sa sa tour euh, amaana fële ca ca Fouta loolu tamit nga revenir ci rapidement. waaw non côté moom tout le monde avait vu que ñu nekkoon Matam en tout cas Ourossogui gi gis nañu accueil populaire bi ñu defal président de la République avec des milliers de femmes des milliers de jeunes donc forcément euh, ñuy wax ñu doon wax a vu de façon ce que ça ce que ça a donné donc c'était pas des revendications peut-être sérieuses quoi. ce que pas une action parce que en fait. c'était dans la presse mënu ma comprendre. Mm-hmm. qu'on des jours accueillir le président de la République avec des projets importants ñu ñu indi déjà pour région de Matam. un aéroport quand a à 14 milliards un hôpital flambant neuf à 21 milliards loolu c'est loolu doy na loolu loolu loolu doy na bilan président Macky Sall xam nga non ñëw non loolu laa waxoon temps yooyu ma ne nit ki booy booy contesté jël sa sa date nga contesté say contesté da bàyyi ba sama jour ngénte nag. ah, ah oui c'était l'occasion ah. c'était l'occasion de voir le président de la République. non ils ont mille occasions ils ont fait le tour du pays. non attendez attendez le voir le président là où ils veulent. donc c'était plutôt du sabotage. qu'autre chose eh, mais mais même avec ça même avec ça. Ah. violence bi virtuelle yàgg naa ko wax teg ko man juste à Ourossogui voilà j'étais sur le terrain maa fa nekkoon j'étais là-bas donc gis ma fi amul fi kenn ku fa ne j'étais blessé euh, ku nekk am na am na non je vais t'expliquer pour maa ngi ñëw amul kenn ku tax naa la am na certificat médical amul y a pas de blessé à Ourossogui y en a ñu li ñu fi wax yëpp gënuñu la kenn kii la blessé même même au petit doigt est-ce que waruñu leen euh, est-ce que y' a pas eu quand même ay ay affaires xamante ne teg ngeen leen ko euh, ba ñoom ñu nekk dos au mur pour mën a riposter comme ni ñu ah, riposter. non mais attends déjà interdire par un c'est une violence. c'est sur les gens et mettre. c'est autre chose c'est autre ah, chose ah, c'est autre chose. c'est autre chose mélanger non non c'est deux cas mhm. c'est deux cas c'est une institution. Mhm. le président la République c'est une institution. donc on l'accueille dans, dans ma commune mais euh, la mairie a une obligation de décorer la ville en termes de drapeaux tricolores pour, pour, pour symboliser effectivement la grandeur de cet événement donc on ne va pas quand même tolérer que c'est des affichages sauvages de n'importe comment <laughs> euh, ah, non non non loolu loolu non bu bu nekk d'accord mais je pense que effectivement les images le montrent comment on a très bien accueilli avec de benn anecdote nee na benn anecdote gis nga le président Senghor. rapidement le président je crois c'était en 78 bi mu ñëw Thiès. Mhm. boobu dama toog rajo di ko di ko déglu. bi mu ñëw foofu y a eu des y a eu des de Wade yu ko xaaroon foofu à l'époque bi mu ñëwee ñooñu dañuy déployer seen pancarte pour montrer tout leur mécontentement mais xam nga Senghor lu mu wax